waa mais Mamadou euh, dama lay laaj benn poste boo xam ne président de la république son excellence Bassirou Diomaye fay jox na ko kenn koo xam ne sénégalais yi taf nañ seen gémmiñ ñi ñu jox yëpp c'est-à-dire ay profil la yoo xam ne dafa dëppoog li ñu leen jox. mais dama lay jox exemple rek non appel à la candidature ñoo ko waxoon. non appel à candidature bu ñu yu gën a impo intéressant dina dina génn. waaw appel à candidature dina am. dina am c'est dafa am ñoo xam ne dañoo yàkkamti xam nga ñi fi jógee ce sont des jaloux yi nga xam ne mu mënuñu opposé wu amuñu programme parce que ñoom fu mu toll nii ils sont dans un sommeil tellement profond appel à candidature man secteur privé laa nekk am na ci ay multinationales yoo xam ne des direction générales yoo xam ne dañuy def appel à candidature mais dama lay jox misaal tey jii bu ñu defoon appel à candidature ARTP wala LONASE wala euh, Sénégal numérique wala wala port autonome de Dakar. Mm-hmm. est que xam nga ne minimum. pour procédure bi dina def juróom-ñetti weer léegi juróom-ñetti weer ñu bàyyi directeur généraux yi nga xam ne Macky Sall moo leen fa bàyyoon rapport jàpp leen ñu sàcc ak alalu réew mi di jaabaa jonge di noos ñu bàyyi leen fa juróom-ñetti weer. donc ñoom bañ koy wax moo nekkoon derrière mauvaise foi wala ñàkk xam non non dinañ ko def. benn la ci non dama la mauvaise foi wala am na du mauvaise foi xam-xam bu wér moo nekk dans la coalition Diomaye et dans Pastef li ci am mooy appel à candidature on a des on a dit certains postes bu ñu demee ba ci kanam dina am dinañ def comme li ma la wax réforme ci administration bi dina am ay direction yoo xam ne dañ koy boole parce que euh, régime bi fi nekkoon dafa jël ay def saucissonnage bëgg a euh, jox benn clientèle politique ñu jël ay direction yoo xam ne yaa ma neex di ko tas di ko tas pour jox ko ay Samba Ndioro Ndiaye yaa ngi dégg ay kalabante yoo xam ne mënuñoo yor léegi président de la république dafay jël yenn direction yi boole ko. Mhm. appel à candidature boobu dina am. mais dama lay jox benn exemple rek ma daaneel. da ngay jël CDC nga xam ne sànq lañu doon def euh, passation de service. Mhm. Fadilou Keita cadre la fa woon directeur la fa woon ñu def ko directeur général CDC mérité na ko. ñaataa nekkoon ci digganteem ak DG bi. ah ñaata ñaata ñaata ñaata nit ñoo nekkoon digganteem ak DG bi. waaw xam nga nag dafa am li wax mooy. bu ñu ko tegoon ci euh, profil rek ak compétence. fajulu neew ma amu ko mais je veux dire par rapport ak fi mu nekkoon am na ñu ko féete kaw ñoo xam ne xëy na bu ñu ko demoon appel à candidature ñoo mérité waaw xam li may wax euh, li may wax euh, jeune Pastef yi Grand Yoff ak ñi may wax jeune Sénégal yëpp mooy boo ànd ak nit ba fal ko le président de la République mhm. benn nit la ñuy fal fii may wax ak yow président de la République ba Bassirou Diomaye fay la tudd moom ku mu amal pour rendre ko compte mooy le peuple sénégalais moom rek la constitution bi jox mu fal ku ko neex kañ la ko neex ak fu mu ko neexee donc problème de nomination problème de confiance la. sauf que dafa mais dafa am dafa am moo tax ma ne la moo tax ma ne la. amul kenn koo xam ne ci nomination yi ñu ñuy def aussi bien dans le gouvernement que dans les direction stratégiques amul benn nit boo xam ne président de la république fal na ko te Sénégalais yi taf seen gémmiñ ne kii mënu ko.